gaa yi tey merengue yi daanaka rek ñoom xol bu sedd la ñu fanaanoo tey waaye ñu ànd ci ñoom ci information yi nga xam ne dañ leen koy faral di jox Bellingham daanaka mooy tëj xibaar yi l'homme di mat sa tey ji daanaka footballkat bi gën a xarañ gaa yi def leen seen i abonnement bu ngeen gisee ñu leen koy laaj mooy dañu bëgg lépp lu nu dugal rek bu ko defee danaan coow rek ci minute bi ñu ko dugalee bu ko defee nga mën koo coppate ndànk yër say xibaar bu dee da teg sa caayin moo gën bu fekkenteen tamit sa cereeg meew ju fatt taraj ñeexu mbuub wala saab-saab nga mën koo coppati loolee am solo bu baax a baax gërëm naa leen sant santeurs yi nekk fële ca Santiago Bernabéu yi ñoo ñi ne fii ci Sénégal ñoo yem ab bëgg-bëgg teyit ñoo yem cafeel gu ñu am ci club bii di Real Madrid donte nag dun bi nga xam ni daanaka yaakaar nañ leen ren ñu jël liggéey des champions ndax li des bari na donte mën nañ koo jël ci sama xalaat waaye nag loolee dana am solo bu baax a baax ñu continuer xibaar yi ginnaaw supporters yi bu ñu leen wanee waaye Bellingham ngeen gis ko bu muy si tey jii ca Santiago Bernabéu dugg si gi mu fa doon def nag dugg si googee daanaka xumb na ndax supporters yi ñoom ñëpp dañu daali woon di jël li nga xam ne mooy turam di ko way maanaam loolee bu ko déggee mooy am nañ cafeel ci yow ak équipe bi nga xam ni moom nga àndal ñoom ma Madrid màgget yeeg koosor googu waaye nag bañ demee ba ca biir match ma bañ futbal ko ba ca njobaxtal ga maanaam ba mat sama jeex loolee lépp ñu doon way gis nañ ko ndax gone gi gone UEFA yi bu ñu déggee UEFA mooy ñi nga xam ni ñoo organisé boobee match ñoom nag buñ xoolee vidéo yi xoolaat match bi xoolaat match bi nee nañ kii di Bellingham nag match bi di 90 minutes daanaka moo ca dàq football moo ca gën a taxaw moo ca gën a teg ay mbiram ci temps ak heure gone gi dugal na ab bit tey daanaka sonnul ci match boobee ndax fu ne baraj baraj na fekk euh, telli telli ngir mën a ak équipe am boobee am victoire ma jàpp ni nag gone gi li mu commencé dund fee ca Madrid dund la goo xam ne gu naan a neex ci moom donte gu Dortmund ma nga fa doon am taxawaay yoo xam ne am na ko fa waaye li mu jot a def ci Real Madrid sax est-ce que Cristiano Ronaldo ci ak commencement am defoon na ko yaakaaruma ko kon ñu ñaanal ko jàmm ñaanal merengue yi yàlla defal leen sutura maximum de partage euh, ci suñu vidéo tey bu leen fàtte di aimé li nga xam ni mooy vidéo yi ndax aimé boobee dana coppati li nga xam ni mooy bànneex euh, gën a YouTube yéen a ci Amérique